bonsoir à tous et bienvenue ñu ngi leen di nuyu l'invité de 7TV soir waxtu bi jot na sunu gan yegsi na ñu plaisir di recevoir tey ci plateau bi madame Ndeye Fatou Aïda Sougou nekk responsable politique bokk Alliance pour la République nekk député Benno Bokk Yaakaar madame Ndeye Fatou Aïda Sougou ñu ngi lay euh, nuyu. Euh, maa ngi lay fay bu baax Mamadou di nuyu sa téléspectateur yépp Euh, di kontaan aussi ci invitation bi ngeen xam ne invité ngeen na ko ñuy ñaan lépp lu ñu fi wax rek yàlla na nekk intérêt pour réew mi incha allah. jërëjëf intérêt réew moom ci la ñuy taxaw ak ndaw ñi nga xam ne dañuy xëy di daan seen doole ñu taxaw ci le camp des march le cas des marchands ambulants ak cette visite bi nga xam ne démb le premier ministre Ousmane Sonko amal na ko fële ca Colobane déguerpissement yi jur coow lu bëri bari mu mel ne dafa nekk une patate chaude boo xam ne régime yëpp dañuy confronté wu ci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 wala dañ leen a manipuler comme ñu ko ñenn ñi soupçonné. non man Mamadou manipuler du ma ko wax xam nga manipuler ñi koy wax toujours mooy ñi koy def. Mhm. man duma wax manipuler xam nga lu may wax sénégalais yi dofuñu te xale yi aussi dañu dañu dañu mûr. lu ñu bëgg-bëgg nit dañuy xool loo xam ne ëllëg seen intérêt daf ciy nekk ñu xam ko mhm. te premier ministre ni mu doxali nii doxali nu cuune la doxali nu cuune mooy wax loo xam ne contradiction yi ci biir wax ji yëguma ko woon lu toll ni premier ministre mhm. nga xam ne ku ne xam na ni mooy ndayu ndayu gouvernement président de la république bu waxee moom lay waxal moom mooy jox instruction wala moom mooy jox ay xalaatam ay ministre am mm-hmm. ku mel ni ministre de l' intérieur fi nekk nga xam ne tey général de l' la amul caaxaan kooku xalaat nga ni nit war na koo mën a bañ a yëgal loo xam ne depuis le 7 mais loo xam ne bind nga ko ne da nga koy def nga naan yëguma ko woon dem ba ci biir nga naan commande euh, euh, collectivité locale yi nga demaat ba ci biir ne euh, président bi daf maa woo ne ma li ngay dégg lan la mm-hmm. ñeenti wax yu bokkul dafa am loo xam ne dëgg bi dafay am loo xam ne day lëndëm ci xelu nit ñi jàpp ne toujours mi ngi ci opposition. ah léegi qu'est-ce qui se avec Ousmane Sonko li ngeen ko doon wax naan que ne du homme d'état état dafa yu mu laaj moo nekk di feeñ nii wala xët-xëtam gi doon ci am bi mu nekk opposition lay doxal ba tey. non dafa jaawale fi ñu toll nii mbubbu la jaawale ak mbubbu opposition loolu nag dama koy interpeller léegi. di ko hmm. delloosi à la raison. wax ko ne ko moom yàlla bu fekkoon ne far na yàlla faral na ko ni ko yàlla farale mooy lëm doon wut am na ko hmm. kon dafa war a summi mbubbu opposition bi mu yor jël mbubbu premier ministre bi nga xam ne ay nawleem yi fi jaar noonu la ñu def nga xam ne tey am na nu muy demee noo xam ne lii muy def nii yëpp pour jouer la pour foo dafa nekk daal dafa bind daal ku maturul daal man en réalité loolu laa ko jàpp mhm. et puis nag état dafa yomb torop nga nga nga dànd état di xas état di dànd état di wax lu nekk état boo ci duggee ci biir ngay xam luy état dama defe ne nag dafa xamul woon réalité yi mi ngi doog xam réalité yi ah, mais d'un a vu que Ousmane Sonko dem dem na aussi ca fi naan Anse Bernard foofee nag moom li leen tuumaal moom dafa mel ni yéen régime bi fi nekkoon yéen ko def mooy morcellement terrain yi parcelles yi littoral bi foofu aussi ñëw na ci waaw xam nga littoral ak morcellement terrain loolu yëpp xam nga li may waxoon léegi rek nee naa la état continuité la ñun bu ñuy changé bu fekkee ne sénégal yi dañoo dem ba changé régime xëy na dañoo gis loo xam ne naqari woon na leen ci régime bale waaw léegi ñoom régime bii dañ koy dabu mm-hmm. daf cee am yoo xam ne du wax dañ koy jëf soo demee ba ci biir gis ne lii nga wax nii su fekkee ne am na nga ni dañ koo paacoo par ñaar ak ñett mm-hmm. mais defal li yoon ñun état la ñu Sénégal la ñu àndal. Mm, mm, ñun mm. Sénégal mooy suñu. première donc jaru ko na bàyyi justice def liggéeyam na def justice liggéeyam moom ci boppam na joxe instruction su fekkee ne li mu wax dëgg la. Mm-hmm. mais nag man dafa am loo xam man boo masee wax benn jubul nga wax ñaar jubul loo waxati dama naan jubul man. Hmm? man li ma gëm mooy loolu la si toutefois nga nga nga wax benn ñu ne ah loolu amul de nga waxaat beneen ñu ne amul de. loo waxati man c'est le cas de Ousmane loo waxati man du amul ci man laay jàpp et c'est le hmm. cas de Ousmane Sonko. waaw gis nañu gis période bi mu jëlee euh, décision wàcc ci terrain bi dafa méngook beneen coow boo xam ne moo ko précédé woon muy la déclaration politique générale ci bi ñu koy xaar ñu bëri jàpp ne lii nii mu génne yëpp mbir la yoo xam ne rek c'est une manière d'atteindre li nga xam ne mooy euh, actualité bi xewoon te concerné ko directement. xam nga nag loolu moom dafay loo xam ne loo ko camoufler camoufler camoufler dafay feeñ ndax lii feeñ mooy dafa song loo xam ne. moom moo ko daan prôné ne séparation des pouvoirs. Mhm. moo daan wax ne assemblée nationale na doxal doxalam exécutif doxal doxalam tey jii mu def loo xam ne ku ko ci dégg danga koy gën a xeeb et je regrette vraiment li nga xam ne moom la wax mooy ne du defee DPG ci assemblée nationale li fi dindiwuñu réglement intérieur mais loolu xanaa tey la. règlement intérieur boobu ñuy ñuy coow ni di ci di ci indi ay problème mais règlement intérieur boobu moom la Amadou bat joué moom ci la defee woon déclaration politique générale ak itam ña ko jiitu woon mhm. ndax bu sa moroom yëpp dee bëy boo dul bëy njëgu bëy nga ñi fi jaaroon ay ay premier ministre lañ kenn ku ci nekk da nga dem assemblée nationale taxaw fa ndaw pencum ndaw réew mi wax ak ñoom li nga xam ne moom nga war a wax mhm. et c'est dommage pour lui moom su génnee defee ko feneen seeti ay universitaire bu mu ko tuddee ti déclaration politique générale ah. na ko tuddee mm, conférence de presse wala na ko tuddee waree ba nu mu ko tuddee mhm. mais am na loo xam ne ñun député yi rek la ko mën a wan ñu posé ko ci ay question laaj ko ci mu wax ñu ko mhm. et nag man li ma koy dana gën a dalal nous sommes une une opposition républicaine mhm. boo xam ne ñun du ñu ñoom ndax li tax ñu ñoom suñu doon ñoom bërki démb bi ministre des finances di ñëw kon nga dégg ñu ne Sénégal assemblée li mu def ndax mënoon nañoo dajaloo ba ci biir assemblée bi ñëw di yuuxoo wala di ko saboote wala di def ay mais defuñu loolu. Mhm. parce que ñun xam nañu luy état. Mhm. xam nañu. seen digganteeg ministre bi dinañ ci ñëw ci kanam tuuti parce que aussi euh, lu important la mais ñu taxaw ba tey ci euh, wàllum DPG bi ak li mu sàkku ci yéen. mooy que ñu revoir euh, li nga xam ne mooy règlement intérieur bi nee ma lu bëri def nañ ko ci règlement boobee d'accord na ak yow mais aussi il n'est jamais trop tard pour bien faire maanaam li mu li mu revendiquer aussi est loo xam ne lu légitime la loo xam ne war ngeen ci taxaw pour rek sénégalais yi xam ne yéen kat vous n'avez plus rien à vous reprocher. mais loolu loolu loo ne woon bu ma doon buur def ko mi ngi ci buur actuellement bi mu ko waxee. Mhm. pour ñun ñu bañ ko wutal benn alibi. Mhm. ragal naa ni président assemblée nationale mi ngi ñuy dégg. ragal naa ni euh, membre du bureau assemblée nationale ak euh, les les la conférence de présidents daje dinañu daje ci ci li ma xalaat mooy nii duñ ko may benn porte boo xam ne. Mhm. <laughs> dina ni fii du ma fi jaar porox ndoll bu mu tëgg rek dinañ ko fat bu dee loolu rek. vous êtes prêts mais tey rek yaa ngi dégg le président Abdou Mbow naan la bu question une semaine la quatre jours la ak nangam nangam donc am na loo xam ne moom bu fekkee ne pare pare na laa wax. Mm-hmm. et c' est un mot boo xam ne booy boo ngeen bàyyi ko xel est ce que pare na. Mm-hmm. est ce que la déclaration politique générale est prête. mais ils ont ils ont un projet vendu aux Sénégalais. Mm-hmm. xam nañ fi ñu jëm nee na ñoom dañuy falu rek doxal loolu la jaayoon. aussi a déjà def nañ quatre vingt dix jours dañuy falu rek doxal def nañ quatre vingt dix jours cin bu naree neex bu ba xeeñ actuellement ay menaces moo fi am. actuellement ay ay xuloo moo mu mel ni da nga dañu nekk par dañu nekk ci moment boo xam ne moo opposition c'est la première fois depuis le Sénégal et Sénégal mm-hmm. un régime changé président de la République bu bees gouvernement bu bees ñëw mu mel ni dañu nekk ci ci ci temps politique mais justement le président dans tout ça euh, parce que dafa waat ne dafay euh, sàmm constitution bi te constitution moo Ousmane Sonko dafa war ñëw assemblée nationale mm-hmm. donc ce discours ce débat est-ce que président ah man de ba tey ma jàpp ne xanaa c'est pas trop tard bu fekkee nag ligoté wuñ ko takkuñu ko. parce que nag président moom mooy garant de la constitution. mais bien sûr exactement te là c'est la constitution qui demande article 55 moo ko may loolu. moo mm-hmm. ne moo ne le premier ministre dafa war a ñëw devant les députés. Mm-hmm. kon donc moom te moom moo ne mooy garant constitution li nga wax léegi le gardien de la constitution. kon tey jii moom am na ci kàddu waaye damaa ragal ne xëy na da koy def póotum biir ba mu war a ñëw ba ci biti. Mm. mais je pense que ni warul mën a bàyyi lii mu jàll. Mm-hmm. parce que lii itam lim koy indil lim koy yàqal moo ëpp lim koy defaral. violation de la constitution lay doon violation de la lay doon ba pare day dem loo xam ne dafay mel ni yow yaay buur yaay bummi yow mais nag euh, Mamadou erreur bi xam nga fu mu nekkee. Hmm. wañ gi mi ngi bañee ci mbànjaxaan gi. loolu mooy hmm. bi ñu jógee rek li ñu tuddee le duo gis nga euh, président de la république du bang bang la kii di toog fii kii toog fii kii toog ci digg bi chaise la. ñaar duñ ko bokk. chaise la kenn nit a ciy toog. donc am na ci loo xam ne le président Bassirou Diomaye Faye c'est le président de la République du Sénégal qui doit prendre ses responsabilités qui ñi ci nes ñëpp nag moo xam nu mu àndeek ñoom mais ba tey kàddu gu mujj gi ci moom la war a jël les fortes décisions moom moo ko war a jël les moo ko war a jël mhm. mais nag dañoo mel ni ñun actuellement dañu am ñaari président bu kii nee nii kii ne nii kii ne woo ma démb ci suba kii ne def naa lii doo xam en fait. en réalité kan moo gouverner mais li nga ne Ousmane Sonko euh, xëy na dafa parewul pour jàkkaarloog yéen a jóge ci yéen parce que aussi Benno Bokk dafa leen a pratiqué dans le passé quand il était ko may jàmm tey jii nii loolu xaw na inversé wu mais ba tey la majorité yéen yéen yéen a ko yor. waaw mais mais na xelam dal nag parce que xam lu tax ñun duñu ay immature duñu ay bàyyi ma te Sénégal ñun ñoo ko gënuñu koo bëgg senegal mhm. ñun gënuñoo bëgg Sénégal. te li fa nekk tey bu ñu ñëwoon bu fekkee loolu lay ragal na xelam dal. Mhm. que ni bu ñëwee liñ ko war a laaj dinañ ko ko laaj bu dee loolu la tiit du am ba daara loo xam ne xalaat na ni dana ko war a mën a tax mu daw mais na ñëw wax ñu fan la jëmee réew mi. Mhm. en tant que premier ministre na ñëw jox ñu information wax ñu ne exactement eurobond yi ñuy def fan xaalis bi ñuy dajalee rek te doon wax Macky Sall da daan leb fu xaalis bi jëm. lim ñu doon wax naan tey daf ñu caisse bi nga xam ne da wax dafa dafa araam nañu mm. wax caisse noire bi fan la ko jëlee ndax tëj na ko ndax tëju ko ndax commencé na ko laal nañu wax nañu wax nañu wax mais justement donc on a tas de questions on lui yoo xam ne war nañ ko poser mu war ñu ko wax en parlant de la caisse noire ñoom tàmbal nañu rationalisation des dépenses boo seetloo tey lu bëri arrêté nañ ko convention ak yenn société privée yi presse yëpp arrêté nañ ko euh, RTS gis nañu Pape Alé Niang annulé na augmentation de salaire yi euh, yu bëri def nañ ko euh, est-ce que tamit loolu jàpp nga ne généraliser nañ ko ba ci ñoom parce que aussi man dégguma benn yoon foo xamee ne ñoom ci seen ay payor les DG et autres la laal nañ ko yéen au niveau de l'Assemblée nationale est que tamit amul lu ngeen ci war a mën a mën a jouer waaw mais loolu moo tax nag il faut ñu toog waxtaane ko loolu lay bu fekkee la loolu lay daw pour laaj ko mais il faut mu def ko. Mhm. bu ki wiiri wiiri jaari ndaari il faut mu jàkkaarloog assemblée nationale jàkkaarloog nit ñi même tey bu ko defee woon feneen am na ay député yu am fulla yoo xam ne. dañ ko fekk fa mu nekk poser ko question bu a mhm. mhm. a def yoon rek mooy na ñëw ñu ko li ñu ko war a laaj mais du moom moo ñuy wax nii la ñuy def wala naa parce que séparation des pouvoirs dafa am. te nag président euh, assemblée nationale nekk na barab boo xam ne am nañu seen légitimité noo xam ne li fal président ja Bassirou Diomaye Faye moo ñu fal mm-hmm. parce que nag souveraineté universelle la la fal moo leen fal kon donc am nañ ci droit mais justement seen benn ancienne collègue Aminata benn légitimité ndax dañoo fal pouvoir bu bees euh, que amul benn compte bu leen Ousmane Sonko war a war a rendre venant de quelqu'un boo xam ne elle aspirait à être présidente de cette assemblée nationale malheureusement malheureusement pour elle une am loo xam ne euh, euh, euh, rafetul sax parce que am na loo xam ne boo ko waxee nit ñi dañ lay weddi duñ la gëm Aminata Touré que je respecte beaucoup bu demee ba naan tey lii dañu war a tas assemblée 31 amatuñu légitimité te moom bu pexeem jooyoon heure bii tey jii moom la Ousmane Sonko di jàkkaarloo. Mhm. kon donc sénégalais yi dofuñu dafa am loo xam ne mënoo ko wax démb tey nga changé ko ba pare nit ñi teg la ci benn considération bi du am. Mhm. te bu mu yàq capital de sympathie ah mais da ngeen koo tooñ nag est-ce que loolu la gardé ba tey tooñ tooñ amul tooñ amul parce que li tax ngeen foqatee mandat bi mu yoroon aussi non mais foqati mandat ba et puis euh, euh, je profite de l'occasion pour wax la ne man maa ko remplacé <laughs> man maa ko remplacé ah, assemblée voilà voilà mu ngi noonu et c'est une sœur que je mm-hmm. respecte beaucoup mais quand dafay am loo xam ne mbir moom du ma du ma lekk mbëtt te di naan ñeex mm-hmm. moo mënul nekk mbir dafay am dafay am fu muy toll foo xam ne day jaar yoon mm-hmm. président Macky ku ne xam na ne Aminata Touré tey bu ko fukki sénégalais xamee ginnaaw yàlla président Macky kon tey bi koy la justice ak PM kenn xamu ko. ko kenn xamu ko bëriwul woon boog ñu ko mm-hmm. léegi yàlla dox moom itam mu liggéey ci li mu liggéey bu mucc ayib. su demee ba lii am tax mu mel ni xamatul président Macky Sall wala xamatul régime bi mu nekkoon tey am na loo xam ne boo génnee vaar lem mu toogaan daan wax ci projet tey ji projet boobu mu boot ko rogganti ko day nekk loo xam ne nit man damay gëm mu cohérent te conséquent ci ay mbiram. Mm-hmm. et je suis désolé. Macky mais bien sûr. Mhm. bien sûr pour cent. bien sûr non seulement loolu elle est noonu la doone woon sama présidente conseil économique social et environnemental. Mhm. moom xamoon nañ actuellement amul fu mu jaar foo xam ne tey waru fa mën a def comptabilité am boo xam ne dina bokk ci bi bilan président Macky Sall. Mhm. kon tey su taxawee di di di di wax naan assemblée bi amatul légitime amatul légitimité et puis en le 31 yow le 31 nu ñu lay falee le an duggagoo man man installé guñ la nga ne loolu mën nañ ko ci fal loolu bu ko waxee sax moom xam na ni day nax boppam mm-hmm. parce que xam na li muy wax gëmu ko nit nag booy wax da wax loo gëm mm-hmm. nit wax loo gëm dafa bokk ci lu am importance léegi le fait que euh, le premier ministre Ousmane Sonko euh, leen jox seen euh, cër bi ngeen moom en tant que institution yéen vous ne restez pas a vu que def ngeen benn conférence de presse évoqué même sax révision article benn constitution bi pour justement bañ a may président mu tas assemblée nationale bi waaw parce que li ko def la guerre c'est que la dafa am loo xam ne nit bu fekkee dafa am cër. Mhm. te cër boobu ki ko war a jox joxu ko ko moo koy foqartil boppam. l'essentiel na sénégalais yi xam ne la Benno Bokk Yaakaar ak majorité bi ñu am loolu yëpp ñu ngi ko def ci euh, euh, euh, àndandoo ci Sénégal and xam ne Sénégal mooy paix. et le président de la république son excellence ki Sall li mu njëkk a gëm keroog bi nga xam ne gouvernement bi daanu na nguur gi daanu li mu njëkk a wax mooy opposition républicaine. Mhm. bu leen def. par exemple lii fi nit ñi daan def di foqar ci ay micro di tëb di jël ay kees di taal ay di saaga di nekk ci président assemblée nationale loolu am na loo xam ne ñun du suñu war war parce que xam nañ luy état ki xamul état danga mën na ko def mhm. preuve bërki démb bi ñu toogee gis nga vendredi bi ñu taxawee ba président la président euh, euh, euh, assemblée nationale def session clôture session bi mhm. ku ci ne daa génn coow amul dara amul coow amul da ngeen jóg dem waaw ku ne daa jóg dem bu doon ne am na nu mu doon demee ñu ngi ci opposition tey ñoom ñu ngi ci opposition. Mm-hmm. de histoire baa ngi mel ay coow mais mais comment est-ce que euh, euh, réviser la constitution en sachant que euh, constitutionnelle il faut trois cinquièmes alors que yéen seen majorité dafa rek xaw juste euh, wala compter ngeen ci yéen député yoo xam ne bokkuñoo génn mais amuñu intérêt que assemblée bi tas. non ñoom ci seen biir rek. ñoom ñan ñoom waa Pastef ci seen biir. waaw am na ci ñoo xam ne tey bu dee vote la ñoom loolu la ñuy voté du ñu nangu ñu tas ko. c'est contradictoire ndax lan. ndax xam nga lu tax. Mhm. bi ñuy ñëw ñoom ay suppléant lañu. seeni ay titulaire ñu ngi toog di xaar xam nañ ne buñ ko tasee ñoom dootuñu bokk. duñ ñëwaat dootuñu ñëwaat te dafuñu jinne jàpp leen te am na ci ñoo xam ne ñii leb nañu ñii dugg nañ ci lii ñii dugg nañ ci la assemblée moo mel ne noonu mm-hmm. Mm-hmm. booy du xasee dugg assemblée banque yëpp dañu ñëw tëb la te ñoom ci seen bopp xam nañ ne nanguwuñ te duñ ànd mm-hmm. te bis buñ demoon ba di ko voté du ma la ni unanime lay doon de waaye da nga ciy seppi benn benn yoo xam ne ñooy contre loolu parce que président Macky Sall am na benn jour mu mu jéemoon koo bëgg ne woon dafa bëggoon xalaat xalaatam dafa nekkoon ca assemblée mais ñëpp jóg koo gis danaan la carrément koo gis danaan la carrément bis bu ngeen ko voté waaw ñëpp ànduñu mm-hmm. ci koo wax ñu ne ànd ci ñun en personne dañ ne président Macky Sall ànduñu ci kon tey jii ñun du ñu bañal dara Macky Sall di ko nangul keneen mhm. loolu mënul ne donc luñ ci def ba nga xam ne suñu suñu doole may nañu ko ci légitimité may nañu ko suñu suñu ngor may nañu ko daañ ko xeex ba keroog luñ ci am ko ci leneen aussi lu Ousmane Sonko di ragal xëy na mooy que ngeen def motion de censure pour daaneel gouvernement bi ñoom il l'avait tenté avec Amadou Ba ça n'a pas abouti parce que xëy na matuñu woon mais yéen tey jii nii aussi ak le pouvoir que que tamit euh, loolu du indi benn problème maanaam crise institutionnelle bi ñuy ragal Sénégal est-ce que acte yi posé wuñ ko déjà mais ñoom fu ñu jëm nit doo xam fu mu jëm waaw nit nit non non non mais mais ba tey ba mu am des am na loo xam ne pour intérêt Sénégal. Mhm. ñun intérêt Sénégal la ñu suivre intérêt Sénégal rek. ndax li tax intérêt Sénégal la ñu suivre mooy nekk ñun ay ay ay politique yoo xam ne dañuy nekk xam nañ pouvoir xam nañ luy état. Mhm. intérêt Sénégal la ñu suivre. loolu nag munu koo xam parce que mënul nekk géntalu jàmbur géntu jàmbur. mënagul mhm. xam ñun lan la ñu nar. mais na ko leer ne gënuñoo bëgg Sénégal gënuñoo bëgg réew mi. te it xalaat nañ ne ñun incha allahu bi Benno Bokk Yaakaar am nañu ay idée am ay dajaloo yoo xam ne ëllëg si biir war nañu mën a jëlaat réew mi kon duñ ñu def loo xam ne dañ ñu fiy jéppi mm-hmm. non il n'est même pas question te suñu waa ji def na fi loo xam ne marqué na fi empreinte boo xam ne gëw ma ni ah xëy na yéene naa ko nag Bassirou Diomaye Faye ah, bu ma sañoon Sénégal day continuer mhm. di gën a neex lu Macky Sall def benn mu def ko ñaar mais fii may waxee yow xam naa ne président Macky def na fi loo xam ne ñun duñ ko nga ko jublu woon il n'a il nous a pas reconnu yéen ngeen dàq son son son son ministre ñu bëri noonu lañu ko interprété waaw mais daf ci am loo xam ne interprétation boobu sax interprétation bu wér la parce que nag man man munoo ni yow reconnaître ma munoo ni sa règlement intérieur normal. Hmm. munoo ni tey par exemple du fa ñëw def déclaration politique générale tant que changé wu leen lii wala tant que changé wu leen laa léegi nag man man nangul la man yow nga bañal ma loolu man ma nangul la ko pour lan. Hmm. yow man man may may ma ma ma am séparation de pouvoir nekk sama législative yow nga ne yow nga nekk sa exécutif. Uh-huh. nga për nga bañal ma loolu man ma nangul la ko mais ils ont tous raison. Hmm. ils ont juste de dire que comme demee nga noonu comme wóolu wooñu wala ñàkkal nga ñu fayda sa sa ministre mais naka ngeen ci arrivé bëggoon naa ko comprendre ah comment ça ça s'est passé bañ bañ annulé ko. de façon normale de façon bi nga xam ne amul kenn lu luñ ci luñ ci luñ ciy war a mën a euh, wax. Mhm. c'est-à-dire fi ñu koy jaarale ma dem ñëw nañ ci suba si am nañ ñoom conférence bureau am nañu réunion bureau. les vice-présidents les secrétaires élus. c'est le bureau qui décide. le bureau non non bi ñu waxtaanee. ba ah, pare la conférence des présidents dem tam waxtaan. Hmm. décider ñoom ñooy fixer calendrier waxtaan ne tey nañu clôturer fii la war a yem. yaa ngi dégg ce matin le président Abdou Mbow ne la Ayib Daffé bi nga xam ne mooy seen président groupe parlementaire moo ne nañ def heure bi 12 heures kon kooku xam nga il est au courant de tout ce qui se passe mm-hmm. donc yéen ci biti léeg dañuy jéem sëlëm xelu nit ñi mais assemblée amul dara lu fa nekk lu lëndëm mm-hmm. tout est transparent lépp bu ñuy dem bureau ñu ngay dem réunion bureau bu ñuy ñëw sekk ñu ngi dem ñu ngi dem président des conférences président euh, euh, conférence des lépp day leer nañ léegi mu nekkoon session unique bi ngeen ngeen annulé conséquence yi lan la mën a doon wala du am lenn loo xam ne dina dina ko doon am comme njeexital. enfin je pense pas waaye nag waroon naa mën a ne parce que nag euh, débat d'orientation budgétaire dina permettre. Euh, ministre finance leeral moom itam programme am mhm. wax li mu nar wax li muy def waaw léegi su ko defee ñun ci suñu bopp suñu rôle mooy ah ku mel ne man ah lii nga def ne nee nga ne mm, santé bi de un milliard nga ciy def est-ce que boo ko defoon deux milliards du gën ndaxte ah département de Pikine ga ma dëkk de xam naa ni soxla nañu santé mm. parce que nangam ak nangam donc c'est important donc euh, séance d'information la woon boo xam ne kenn ku ci nekk mën nga cee indi xalaat indi ci sa sa sa contribution luñ war a mën a changer ñu changer ko luñ ci war a a def ñu def ko ah, comprendre naa seen ah, parce que nee nga reconnaître leen yéen tamit vous faites pareil mais tamit en agissant de la sorte causé wu leen benn tort le Sénégalais le citoyen qui avait besoin de ces informations wala sax comme ni nga ko waxee ngeen défendre benn budget bu jëm ci loo xam ne sox soxla na ko. waaw loolu mais mais lenn lool c'est pas trop tard de le faire ah. su fekkee ne c'est pas trop tard mooy su fekkee ne xalaat na ni war na ñëw assemblée. Mm-hmm. def ci de mën nañu fixer beneen date d'accord parce que déjà ñun ñu ngi ci ñu ngi ci vacances parlementaires parce que clôturer nañu suñu session mais à tout moment mën nañu am euh, euh, euh, session extraordinaire mhm. te bu bu ñëw lu ñu ci war a def ñu def ko ci mhm. kon donc c'est pas trop tard que mu moom bu bu revenir à de meilleurs sentiments xalaat ne war na mën a ñëw li ñu naan ko nous exigeons que mu ñëw assemblée su ci accepté ba war a mën a ñëw assemblée ñun aussi lépp lu mu bëgg ci ministre am yooyu dinañ régime Ousmane Sonko euh, bi muy gis euh, xale yi Colobane ànd na ak ay euh, Aïda Mbodj juste pour leur montrer que ne ñoom pare nañu pour financer seen ay projet contrairement ak yéen ñi nga xam ne nga jox ay ay homme politique ak benn la ñaar aussi réduction de la de la vie am na ay ay jéego yu ci def yoo xam ne aussi sénégalais ñu ngi ñu ñu ngi applaudir maanaam tout n'est pas noir dans dans dans ce régime. non man nag xam nga bokk naa ci ñi nga xam ne lu ma opposé opposé bu lu baax ñëwee dama koy apprécier. Mhm. xëy na denrée de première nécessité yi wàññi nañ ko mais wàññi gi mu néew mu bari turu wàññee ngi ci même bu dee benn cinq francs def nañ acte te xëy nañ nag ñu ngi leen di demander nag ñu gën ko def parce que nag boo jëlee lu toll ne par exemple euh, euh, euh, fukki dërëm enfin ñetti dërëm di ko wàññi wala juróomi dërëm di ko wàññi ci mburu soo ko mënee yokk moo gën mhm. mais ndànk ndànk loolu aw ma ci problème mais ni ñuy doxalee déjà par contre allez par contre ñëw ànd ak ku yor deer naan deer finance xale yi dañ leen di financer mais bi mu waxee loolu dégg nga téeméeri xale yu taxaw <laughs> ne carrément ñun soxlawuñu financement li ñu soxla mooy ku ñu accompagner. Mm. li ñu soxla mooy ku ñu wutal fu ñu ne ku ñu may jàmm ku ñu àndal liggéey xam nga dafay am loo xam ne financement boo xam ne te te te te Mamadou am na loo xam ne wax nga ko te am na ci côté boo xam ne je ne suis pas d' accord. Mhm. mooy dañuy financer politiciens yi non. je ne suis pas d' accord Ousmane Sonko moo ko ngeen doon def. a dit xam nga déjà mi ngi noonu waxati na lu ko wóorul waxati na loo xam ne amoon na ñu mën a taxaw ñu taxaw ñoo xam ne dañ naan la opposition laa bokk. Mhm. te am na am naa DER. am ku mel ne man maa ngi ni yàgg naa wut DER ma am DER. Mhm. demande naa ko ba sonn musuñu ma jox DER te pourtant xanaa waroon naa mën a am DER. mais nee nañ nag audit yi wane na lu doy waar ah ci ci ñi ñu ko doon joxe. ah waaw mais wetin si nañ ko génne xam nga wax bi yomb na. Mhm. comme loolu dafa jarul wax li yow génne nga loo xam ne nee nga leerul wane ko. soo ko wanee rek nit ñi xam. mais am na am na fenn foo xam ne bëggoon naa la ci interpeller euh, yéen jàng jël ay mesures mais du am suivi au bout de quelques semaines gars def lu leen neex mais état bi nii dafa ànd ak fermeté gis nañ ko ci transport bi ak tabaski gi gis nañ ko aussi ak meññee yi lu mel noonu aussi est loolu tax sénégalais yi yéen xamoon leen a weddi tuuti parce que seen ay soxla da ngeen def benn affaire rek après après mu yem. waaw parce na ko démb parce que reculé ci ci lan ci ci ci marchand ambulant yi marchand ambulant yi waaw. il a reculé il a demandé ak ñu a a reculé parce que li tax mu reculé mooy. il a demandé le commandement territorial et les collectivités locales nañ waxtaan nañ def lii nañ def lii parce que njiit da war a am yërmande. Mhm. boo doonee njiit da am yërmande. et que président Macky dafa amoon boobu sa euh, euh, euh, écoute. bu problème amee ñu xool situation bi ni mu demee mu ne non xaar leen nañ def lii nañ teg ci suuf nañ def lii te loolu la kilifa di jëriñ mhm. kilifa doo jël sa kaddu rek wala nga jël sa paaka rek war a jor sa lañset rek di dagg di xotti dangay ngay toll foo xam ne dangay xam ne ñii yaa leen yilif mhm. te nit boo ko yilifee da ko yilife dara gis ne kii kat li mu def du yoon xaaral ma xool wax ak moom ak nii ak nii ak nii moo tax bi ñu waxee ay affaire financement ay DER xale yi faale wuñu leen lijjanti wuñu loolu liñ gëm mooy ñu may leen jàmm mais nag néanmoins du duma far aussi ku nekk ci liggéey koo xam ne li muy def du yoon. Mm. man li ma bëgg mooy nit boo koy yëkkati wutal ko fu mu nekk. nee ko yow tegal naa la place bi su bañee nag nga doog cee jël décision waaye bàyyi ba guddi ñu tëdd nga toj seen i place ñu amoon ay dàll seen benn parti jaar fii benn jaar fi ñu amoon dajale woon ba amoon benn un million jënde ko ay téléphone mu mu mu nul loolu lu metti la. Mm. lu déplorable la loo xam ne la ku koy def sax amoo yërmande. une dernière question ëllëgu Sénégal noo ko gisee ak régime bi fi projet bu ñu teg sur la table moom la ñuy appliqué nee nañu gis nañu que ne ay perspectives yoo xam ne yu meilleur lay doon. Mamadou yow da nga gisagum projet. dama lay laaj ndax gis nga projet da dégg turu projet mais gisagoo projet. Mhm. kon donc boo gisul projet mënoo koo xam lu projet def. parce que nag projet bi am na ñu ne éléphant blanc la am na ñu ne projet bi. te wanoo ñu projet bi waxagoo ñu projet bi. nee na il est prêt waaw leer yàggatul. c'est dans dans 15 jours tey la le premier du 15. yàggatul su ko defee en tout cas c'est su ko defee on applaudit. mais am nga yaakaar parce que les Sénégalais ont et que li gën Sénégal mooy que ñoom ñu réussir pour le bien du pays. mais loolu la Sénégalais di ñaan man en personne. Mm-hmm. tout ce que je demande mooy la réussite. du gouvernement. Hmm. parce que loolu dama ciy gis sama bopp keneen gis sama bopp parce que Sénégal kenn gënu kenn ëppale wu ma fi kon man bëgguma Sénégal ñoom ñu bañ a réussir mais nag damay bëgg lu mu menti ñu teg ko ci dëgg di wax dëgg di def dëgg. Hmm. jub googu ñuy wax ak jubbanteeg njëkk ci ni. di wax dëgg di def dëgg di informer dëgg nit ñi xam dëgg. te nga xalaat ne waroo mën a menacer kenn. mais Mamadou je profite de l'occasion nuyu suma benn frère boo xam ne ñu ngi nii téye ko en détention ci lu normalul hmm. muy baa Mhm. Bah Diakhaté il est dans la même commune que moi muy koo xam ne jàmbaar la da doon liggéey liggéeyam jàpp njàmburam non wax wax fii lu ne am na fi fii lu ne am na fi fii si ay président la république am na fi. Mhm. président Macky li mu dégg kenn du ko dégg. ci àddina ndax mës nga dégg ku ne jàpp nañ ko ndax na buñ ko jàppee itam du àgg fii. mais nag na ko leer ne fa mu nekk aussi xam naa ne jàmbaar la c'est un homme te incha allah il va s'en sortir incha allah merci merci merci infiniment. jërëjëf di ko sant bu baax a baax moo nekkoon sunu gan honorable Ndeye Fatou Aïda Sougou responsable alliance pour la